rek nga fàttali. ah ak dem naa ko. mu nekk dara dara boo ci génnee déglu. parce que man kay ma la wax nga ne ma dama tudd dama subi braaj xam naa dafa dafa juróom ndax dama oto bi dafa tàng. dara nga war a bàyyi nga war a da maam Thierno Ibrahima Fall. ah ak gëm naa ko. parce que maam Thierno moom la woon nga ne ma dama tudd dama subi braaj xam naa dafa dafa juróom ndax dama dafa oto bi dafa tàng. dara nga war a bàyyi di defar defar denc yu xaw ma. damay daa soog dara di defar defar. ndax moom la dara nga war a baax. da nga bëgg dara trop. damay subi braaj xam naa ci raam. mi ne boobu na def. kee xam bu jugee ci lislam gi rek lay xëy ci lay tontu. waaj pour waaj bi waaj wóolu yow pour wóolu te wóolatu la yow bu ko wóoloo ba léegi magam pour mu do ba mu do parce que papa la ko fa ko ba ko sen sa sen jugé ko Thank you.